waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu suñ xabban maa ngi lay nuyu lu bare bare bare bare lay joxum pa daara maam jaara xam naa daanaka daal yëf daanaka ay ay répétition rek lay doon ñu wax waaye nag jàngalekat yi dañuy wax ne baamtu baamtu ci jàngale la bokk ay la répétition est pédagogique répétition moom luñ ko gën di def rek mu gën di indi njariñ waaye bu dee jëmmi Sëñ Muntaxa daal li nga ci xam la ci ñëpp xam mun Muntaxa amul inspecteur maanaam li ñuy wax inspecteur bu koy inspecteel xamaluñ ko ko ndax mbir mu ne xam na nam deme mbir mu ne it xam na na mu tëdd yàlla dogal na bu dee kàddoom joxe na ko àddina bépp maase nañ xam ne sëriñ Basiiru moom sëriñ Abdul Qaadir moo yore kàddoom loolu moom kenn nu wérantewu su fekkente ni bii ci biir këru boppam gii la lépp lu muy yëkkati kàddu di ko wax sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdul Latif moo ko koy jottalil bu sëriñ seex xate lool bu daayira yi ñëwee sëriñ Mammoor moom sëriñ seex ab sa sëy mooy jottali kàdduy sëriñ bi sëñ Mammoor li mu yor liggéeyub sëñ seexum sëñ bu la waaye sëñ seex li na ci kawam ci ay liggéey moo bari bu dee biir kër sëñ bi ci boppam bu dee jëwriñ gi nga xam ne moo yilif liggéey bépp ci ni kër gi di doxe mooy sëñ Moussa Nawel sëñ Moussa la sëriñ bi di saytuloo liggéey bi sëñ Moussa mooy joxe ndigal yi lenn lu lenn muy doxe sëñ Moussa xam na ko waaye am di ko inspecteel moom xamuñu ko ko koy defal ndax ni ma la ko waxee si Muntaxa mbir mu ne am na ca xam-xam mbir mu ne it bu egsee lam ca war a wax la cay wax bu dee lu muy wax lu ka ko war a wax la koy wax loo lum mën a doon loolu leer na àddina bépp kon lu lëndam moom nekkatu fi léegi nit ñi nag réseaux sociaux yi moom nit ku ne fi ne sa téléphone mooy sa télévision daanaka loo ci bëgg a jàllale ne man nga ko cee jàllale ci sa coobare waaye tekkiwul ne loo ca jàllale nag sëñ bi nga ko jàllaleel déedéet déedéet Ablaye Diakhoumpa danay wax lu bari loo xam ne sëñ bi du ko yëg du xam ne Ablaye nga koy wax ndax yàlla da ko binde moom sax yàlla def na lijjë sëñ bi moom maanu na maanu ko toll ne du ci mbirum kenn amut jot sax ci toog ñu koy ñu koy wax ci mbirum nit mu di ko càmbar wala dara amut jot ko jot gi mu am daal mooy li mu yilif moom du ko seq kenn lam ca war a def lay def lam ca war a wax loolu la ca wax yàlla bind na ko it moom Cheikh mun Mountakha muy jëmm joo xam ne àddina bépp jàmm la leen yéene nit ñëpp muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw kenn ku ne lam yéene boppam jëmmi boppam ja loola la la yéene mooy ak mbaax ak njub ku ne loola la yéene xàmmeewu ci nag ma sàmba walla ma demba amut lu koy neexit wala lu koy naqari moom lépp lu koy naqari nit ñi xam ne na loola day doon lu naqari sëriñ bi te loola day doon lu naqari sunu borom mu naqari ko bu dee lu ñu jëf mu di ko neex nii mu di ci am yëg-yëg am neex-neex di di ci yëg mu di ko neex loola day doon lu yàlla gërëm te loolaay doon la Sëñ gërëm mu neex ko foofu la nekk laabireem googu it nag berelu ko kenn sëñ Muntaxa ku toog ci xar kanamam bala ngaa jóg mu laabire la ak koo mën a doon ki yeewoo ci kër gi di ko gis bis bu ne ak ki fi ñëw tey ak ki fiy waaj ñëw ak ka ne ci biti laabire gi bu koy jàllale ñépp ci bokk yem ñépp lay waxal ñépp la yéene lu baax yéenewul kenn lenn lu tut lu baax ku mën a doon lenn lu ci nekk nag lam ca war a wax la cay wax fam ca war a tàmbalee lay tàmbalee fam ca war a yem la ca yem noonu la bindoo lu bees amut nit ñi seen bopp nag ñoo war a am fu di xàmmee di ràññatle bu la yàlla joxee kilifa goo xam ne yaa ngi koy gis muy wax ngay dégg yaa ngi koy gis muy waxlu ngay dégg yaa ngi koy gis muy jëf ngay gis doy na leneen loo dégg segge ko sa xelum bopp ba xam d'abord yow yaay laaj sa bopp ni kii di wax mooy kan loolu lu mat a xam la mbir mii bokk ku ci moom kan la ci loolu dafa mat a xam ndax nit itam baax na nga xam li nga xam ne yaa ko moom sa mbirum bopp doo ci diisoo kenn baax na nga xam li nga xam ne yaa ñëpp ci bokk yam baax na it nga xàmmee li nga xam ne doonoo ca dara li nga moom moom nga xam ne yoonu kenn nekku ci yoonu kenn nekku ci loola lu la ca soob def yaa ko moom li nga bokk ki nit nag am na ñoo ko bokkal bokk na cim xel nga ni lii nu bokk dama am ñu ma ko bokkal waaye biñ ko bokkee ba noppi nag am na ku ne ci bopp bi yilif lépp naa jéem a càmbar kooka fan la ca ne fam ca ne ma jéem jéem a ne foofa loolu jaadu xujaat fam ca ne ma jéem a ne foofu li nga xam ne doonuma ci dara ma am ci sama maandute bañ caa doon dara bañ caa doonale sama bopp dara nit ki bu dundee noonu mën naa bañ a waaye lu ñëpp bokk dal nit ki war naa am fum mu cay am fu mu cay jëm kilifa giinu yàlla jox nag alhamdulilahi rabbil alamin damaa defe ne nit ñi dañ dut fàttaliku waaye ca njëlbéen nga la ne man yàlla daf maa binde munu maa def lu ma xamul booba ba léegi loolu lay dox ak moom mun ta def lu mu xamul lu mu def lu ne xam na li tax mu def ko te li nit ñi xamut nag sëñ xaban li nit ñi xamut te ko dëgg sëñ xaban Diop laay wax damay bañ ñuy jaawale ndax réseaux sociaux yi sëñ xaban jóob laay waxal ku ñuy wax sëñ xaban jóob laay waxal ci daarul minan mhm. li nit ñi xamut mooy sëñ bii kenn du ko dicté dara te loolu nit ñi am nañ ci kumpate ay décision yi boppam la yor yoo xam ne day toog fa mu toog xalaat xalaatal boppam togg ko ba mu ñor mu woo ka muy def loo loola ne ko kaay defi nangam wax ko fam cay tàmbalee wax ko fam say yem noonu lay doxee te ñu bari am nañ kumpa ci loolu kenn orienté wu ko la ma waxoon ne munu yàlla dafa ma binde mënu maa def lu ma xamut loolooy dox ci moom ba tey mbir muñ ne càpp ci wetam rek xam na lam ca war a def xam na waxtu yim ca war a def defe dara xam na kam ca war a def loo dara kooku kum su nekkoon ca koli koro nañ ko jëli mu ñëw mu ne ko demal def nangam ak nangam ak nangam kooku mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha lamb tuut xam na bu baax fi muy tegub tànkam nit du mën a rafetum xel ba mu jox la sa liberté mbi mbiram foo ci loo ci war a def def ko ci loolu loolu may ko kenn déedéet moom koy lu sam xel xel lu sam xel rafet rafet rafet rafet lu sa xam-xam bari bari moom moo lay woo ba nga ñëw mu wax la lim bëgg ne la nii laa ko bëggee loola soo demee ba def ko ba noppi da nga ko kuy indilaat mu jàngaat ko weneen jàngiin wu bokkut lu ca mat a jubbantiwaat mu wax la ko noonu lay doxee am nanu koo xam ne dañ koo war a jéem a gën a xam mën a jéem a gën a xam nu nuy dundeek moom looloo gën loolu moo gën ci noonu te jéem koo roy nag ci moom ni muy doxe te loola waxoon na ko bu yàgg sëñ du Rokhaya mbakke doomam la ko waxoon moom sëriñ Cheikh Astou Fall mi nekk ak moom mbooloo la mu daje mu xëcc ci mbubbum sëñ Moodu Roqee ba mu tolloog moom mu ne ko kaay ma wax la ni ngay def sama kilifa dama koy bàyyee boppam bàyyee ko sans bopp sama kilifa dama koy bàyyee boppam bàyyee ko sans dama koy bàyyee boppam mooy dama koy may jàmm ci liberté ci ak i xalaatam mu xalaat la mu bëgg a def ak na mu ko bëgg a defee defe ko na mu ko bëgg a defee ma ba ko ca ak xel mu dal bàyyee ko sans bopp du ko gaaral dara damay nekk ba mu wax ma ma def waaye sëñ Muntaxa sëñ Xaban amul inspecteur bu koy inspecteur quoi que ce soit déedéet am na ñu muy liggéeyloo nag ña muy liggéeyloo mbooloo lañu kenn ku ne ak lam lay def loo ak na nga koy defee ak nam la koy waxee nga defee ko noona waaye sëñ bi amul inspecteur wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu